téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy ca Habitat offert. auzu billaahi mina seytaan rajiim mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu. ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaan yàlla sunu bor ñu jéggal di ziar sunu xalifa généraux yëpp yal na yàlla yàggal leen fi li ci jiite Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla na fi yàlla yàggal loolu te may ko wér ak mboolem kulli xalifa fii ci xewu Sénégal euh, mbokk yi seen chaîne de euh, taw seen chaîne YouTube Tawfekh Production ñëw na euh, ci anam yu mucc ayib ku nekk xam ne ni ñu ñëw ci ay changement yu mucc ayib ci logo bu bees tàq ngeen gis ko ci bande annonce boobu li nga xam moom moo di sunu ay tegtal ngir am suñu ay vidéo ak cloche bi ngeen di euh, appuyer bés ko mu nekk ay changement ay euh, doxal yu bees tàq yoo xam ne indi nañ ko ci seen chaîne bi di leen gunge ci lépp lu jëm ci information moo xam ci biir réew mi moo xam ci biti réew moo xam ci lépp li nga xam te yéen ci yëngu bëgg mu fës bëgg mu feeñ na solo lool ngeen di bokk ci suñu ay programme ngeen di bës cloche bi ngir nag abonné bu baax a baax ci chaîne de euh, production bi Tawfekh Production ci YouTube bi mbokk yi ni ko baaxoo dafay waxtu ci nekk ñëw ci li nga xam te moom moo soxool actualité de la semaine di namoon ngeen ko xam naa loolu namoon ngeen ko waaye dikkaat nañ ci incha allah fas yéene ko doore ak tournée économique euh, bu président Macky Sall maanaam tukki koom-koom bi nga xam ne mën nañ koo faram-fàccee noonu bu njiitu réew mi président Macky Sall son excellence tournée bi nag dégg nañ ci coow lu bëri li nga xam te am nañ ci euh, ñoom si de leur coté au niveau du gouvernement balai de revers de mer également revers de main également euh, allégation yi wala boog coor jàpp ne am na ci tournée bi ñu bëri les gens pensent que ne c'est une tournée purement politique que qu'économique ñu ci bëri loolu la ñu analyser loolu la ñu gis waaye tamit dans la forme boo xoolee li nga xam ne moom moo ci am da ngay jàpp ne politique la euh, parce que vraiment le chef de l'État se déplace avec de gros moyens ay jumtuwaay mucc ayib lay yu takku lay yu diis lay déplacé wo je pense que tournée économique de la République li mu waroon def mooy parce que Euh, def na fi ay euh, ay régions quatorze région du pays yëpp def na ko euh, ci wàllum conseil des ministres décentralisé région bu ci nekk ak lañ leen natal ci ay koppar ci xaalis je pense que tey jii waroon nañu xool est-ce que d'ailleurs président de la République la mu defoon ci région yooyu ma nga fa wala déet la fa diggoon ci ay koppar ñu nattoon ko fa ma jàpp ne tey jii am na ay fa yu bëri yu am ci sa communication parce que tey jii ku nekk xam na ne gis nañ accueil yi gis nañ tertu yi kon dañu jàpp ne et puis président euh, am na habitude bu fekkee ne ay élection moo jub si rek ci lay def tournée économie gis nañ ci euh, président parce que toutes les tournées économiques yi nga xam te euh, def na ko lu ci ëpp bu jub see ci ay jongante lañ koy gën a nem kon lool mu ne su cee dàq wàllum politique bu dee dafa jàpp ne wàllum économique la aussi bu ñu analyser côté boobu xëy na cette région du Sine saalum wala côté yi nga xam ne moom moo jëm ci Ndoukoumane lu ci mel ne Kaffrine yooyu aussi ku nekk xam ne ni problème mu employabilité des jeunes am na fa xale yu bëri daw nañ ñëw Dakar euh, euh, problème mu koom-koom ba naka noonu problème mu santé d'ailleurs def na fa hôpital mais est-ce que hôpital ba pare na je me pose la question parce que hôpital ba bu pare woon accident am dans dans cette zone ñu jël nit ñi gaaw indi leen Dakar donc je pense que tey jii moom président dafa jiitu médecins yi médecins yi ñoo ko waroon a jiitu maanaam bu ñu taxawee hôpital du rek hôpital bi tax mi bien boo baax na mais tamit dañu war a équipage équipé bu baax a baax infrastructure de infrastructure de santé yi di barabu fajukaay ñu mën a am ay jumtuwaay yu mucc ayib nga xam ne ka nekk Kaffrine tey jii euh, dootu soxlaate ñëw principal. Euh, dootu soxlaate ñëw Dantec dootu soxlaate ñëw hôpital Fann wala hôpital CTO la muy soxla lépp day nekk ci wetam loolu la ñuy wax une politique décentralisée euh, maanaam état dootu concentré dara dinañ fexe ba askan bi les politiques publiques politique publique li dañuy publique askan bi li ñu bokk dañ ko mën a gis ci seen goxee fa ñuy toog dañ ko fa mën a am euh, tey jii fekkee na nga defar hôpital bu rafet macha allah l'architecture est tellement belle mais aussi ay choc am foofu nga daw amul benn médecin bu fa nekk je pense que c'est paradoxal donc nañu de de de bonnes actions mais malheureusement aspect politique bi da koy coiffé ba xam les gens duñu ko gis loolu nag je pense que le président dafa war a revoir sa copie parce que il ne lui reste que moins de trois ans yoo xamante ni war na war a mën a recorriger waat lu bëri ci ay erreurs yu mu commettre durant son règne je pense que loolu sénégalais aussi duñ ko ko baal ko daf ko war corriger xoolaat ban voie lay teg Sénégal mais jàpp naa ne tournée économique bi lañ ca gën a bu ñu ko tegee ci balance buy daanu côté politique mooy gën daan parce que gis nañ zone ba mu dem di Kaffrine Abdoulaye Seydou Sow ak kii di Abdoulaye Wilane duñ jaarab taal ci wàllum politique ku nekk ngay dañante ay kuy la ñu mënul bokk mbalka nga dem ci yeneen région yeneen boo demee Saint-Louis euh, kii di nga xamante moom moo di Euh, Mary Teuw Niane ak Mansour Faye ña nga boo demee euh, Podor ay set ay set Tall Sall ak euh, Mamadou Racine Sy donc mu nekk ay zone de turbulence zone de tension yoo xam ne sur le plan politique je pense que président la République dafa mel ne ku doon baliser le terrain parce que bu ñu dégg kàddu yi mu yëkkati café naan lii di wala local yi moom daanaka bu ñuy tànn euh, maanaam ki ñuy tànn day nekk loo xam ne ci politique gi euh, ci coalition benn bokk yaakaar bi lay génne du doon tànnif goo xam ne day nekk de euh, façon parallèle alors que loolu mu wax en 2014 on se souvient de ses propos ne woon mbirum élection locale yoonum nekku ci mbirum gox goxaan la donc président day wax démb li muy wax démb ak li muy def tey day nekk ñaari jëf yoo xam day waroo day mel ne yàlla ak yàlla te loolu aussi baaxul ci communication njiitu réew je pense que il doit beaucoup revoir Euh, sur le plan de sa communication et de ses stratégies euh, démarche politique muy taxawal dina am solo lool pour que askan bi gën ko mën a bàyyi xel mais je pense que tournée économique bi wax dëgg yàlla yàqu xaalis la gën a nuru ndax président la mu la ko topp ci daama rek oto euh, service yu bëri bàyyi seen liggéey Dakar kenn mënatul liggéey ndax service yëpp dem na ministère yi direction yi ñëpp daw leader politique fëx daw de baliser taax taax raax raaxal takki drapeau jekkal président bu ñëwee du gis dara lu muy gis lu la cache